waa mbokk yi gis ngeen bi ñu seetaanee gannaaw bi ñu seetaanee combat bu neex ci diggante Mengu Mboor ak Albarka waaye gis nga Albarka da doon xëcc di weñ far yàlla fes bi laal saaku yi mu nekk combat neex mais avant ñu bëre grand combat bi ci diggante ki nga xamante ni moom mooy euh, bu laal ak euh, Pokola dañuy taxaw ak un grand champion bu mel ni Bébé Saloum mu nekk lu am solo loo xamante ni gis ngeen combat bu mujjee jugee diggante moom ak ki nga xamante ne mooy Baye Mandione mais sama grand bébé adversaire la nee na daa bëgg ñu bëre maag moom. ah adversaire daa bëgg ñu bëre maag moom. adversaire daa bëgg. nee daa bëgg ñu bëre maag moom. waay la mais nee naa ko bu ma mayee ma jël. waaw parce que moom référence la quoi nit koy seetaan muy wax ay wax yoo xam ne nii dafa am njëriñ kon moom nit waru koo tetuwaayee eh, quoi ñun mbër daa am image bu ñuy xoolee mais dañoo war a dépasser foofu nit bu ko nit res bu ko ko koo war a parce que ñu bëri ci ay waxu Bébé Saloum la ñuy déglu ah di ci wu quoi mais làmb nag bu ñu boolee làmb la l'affaire làmb moom làmb la quoi làmb bu ñu boolee war nañoo bëri. ñu gis ngeen ni Pokola tey nan ngeen ko waajalee diggante moom ak Boulal. waa ndam rek di ko ñaanal yàlla may ko ndam bu seddu guy ndax kenn dem guerre di wax noonu moo nooy nooy waajalee quoi mais ñu ngi ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam bu dàq bi mu daan am a waaw ñu ngi bëggee ñëpp euh, ko wax ne Euh, nee na bokk nee na euh, bébé Saloum la bëgg mais kii daa mel ni day xaru de dëgër dëgër dëgër moom sama mbër la dama koy bëggee dafa ma neex ah? moom dama koy bëggee sama mbër la dafa daa am fitte ni muy jàkkaarlee ponkal bu doy yow naan la mu ne yow bëgg mu ne yow la bëgg waaw mais am na si droit nag parce booy bu yaru la non nit ku yaru la du ma ne booy sax suma grand la nit ku yaru la nit ku baax la nit ku mën a wax lu rafet la nit kuy bañ la damay bëgg loolu te lépp day tegu ci laj gis na waar voilà Bébé Saloum nga doon bëre benn combat bu am solo diggante yow ak nga xamante ne mooy Baye Mandione est-ce que Bébé Saloum retouram retouram ci làmb Bébé Saloum amul combat bu yomb man soxlawu ma combat bu yomb ndax Baye Mandione dama ko jëndee licence Baye Mandione bëre moo na moom licence laa ko jëndee rek su ma amee combat laay doog a bëre nga jóge ci combat Baye Mandione est-ce que contacté nañ la ci beneen leader boo xamante war nga mën a ak moom da nga naan nga jënd licence ci Baye Mandione bëre moo na Baye Mandione dama cay licence rek waaw da nga ne nga jënd ba léegi promoteur yaa ngi lay contacter. waaw ñu ngi may wax ñu ngi may wax laa bëggagul ndax dama bëgg lu lu métti laa bëgg. Bébé Saloum bëre nga ak Ama Balde Bébé Saloum génération ñoom Balla Gaye Bébé saalum génération boobu tey Bébé saalum euh, fi mu nekk ci làmb problème mu Bébé Saloum lan la moo tax tey champion yi fu ñu àgg ba tey àgg gu fa te Bébé Saloum mën a bëre di daan nag ñu koy gis ci ay combat am en tant que liter tey yow yaa ñu mën a wax lan moo indi loolu. man du ma génération ñoom Balla Gaye de man génération ñoom la ñooñu laa bëree ndool ndax booy Niang bëreel na ma deuxième ñaari yoon Sa Thiès bëreel na ma deuxième ñaari yoon Lac Rose bëreel na ma deuxième ñaari yoon kon yi nag làmb moo doy waar rek làmb day am ay moment yoo xam ne day baax am ay moment xam ne day xaw a doy waar daal mais 24 combats laa bëri am ci 18 victoire cuune mënu ko. 24 24 combats am ci 18 victoire 9 top 5 cuune mënu ko làmb nag daa baaxoo tegante gars yi dañuy dawlante. te xam nañ ci bërekat bi yeew nañ ko génne mbër mi te mbër mi ku ko jël gis affaire barki yonent yàlla moo xam ne mbër may ñëw. kon da nga ne bërekat bi yeew nañ ko. génne ko waaw ndax mbër mi du bàyyi dara te bërekat bi da doon ñëw fee fecc mu neex bëre mu am jël na mais bàyyi na loolu daa yeew bërekat bi génne mbër mi barki Serigne Abdoul Karim su ma gëmoon ni du ma doon waa di arène du ma ñëwaat ndax weer 2 millions et quelque ku koy am a toog fa nga bu baax di lekk baax di am salle suba ma gëmuloo naa doon euh, retour bu am solo du ma jël Baye Mandione di ko jëndee licence bëreegu ma de damaa jënd licence ci Baye Mandione Baye Mandione laa jëndee licence rek nagu sarax la nagu sarax la ma ma xam ma toccami kooku jëndee ko licence di xaar combat nag. actuellement bi nan nga ko mën a gérer ba war a mën a àgg roi des arènes comme ni nga ko waxee ban Bébé Saloum bu bees is back moom lañ mën a xaar. loolu mënuñ koo gis lu dul bari dañ ma ñemee jël jël ma ñu gis bu am solo ndax waa Saloum dañoo takkoo aw say donte mosu ñoo fecceeku mais Pape Demba bi tey daa jiitu Ousmane Noël Dieng ñëw Macoumba Diouf directeur ISRA maire Latmingué ñëw Serigne Mboup maire Kaolack ñëw. ñoom ñaar euh, jibi jabu saporo net ñëw ni ma pare nañ pour topp sa ginnaaw boo amatee combat ñu jënd talon yi jël biche yi booy dem stade feesal ko dell nga bëre daan fekkoon nañ nag waa Caaroy saa ma bëree ñu feesal stade bi Malika ga may yeewoo léegi saa yu ma bëri ay kon problème mu public du sama problème problème mu bu mal communication du sama problème problème mu combat mooy te bu ko mom am nday ko mom am bay génnee ci lamb loolu dina ma yob waaw. mën nañu xaar Bébé salum né ban lutteur la soxla mën nga ko cité ci say moro malik nya la soxla bu ñëw ma may ko sens ndax dañu day bëgg bay bàyyi te bu mom bay dama ko yërëm. mais dañu gis malik nya dafa gëc ci lamb ji ba paré ñi ngi dégg ci mom ñu né dafa bëgg bay bëré li tax Bébé salum soxla malik nya da laaj ñaari mbeur mu né wala mu bay bëré mu laaj Bombardier ak Tapha Tine amagul ko mamé Bombardier amna na buñ ko nangul may sens kon day bayyi ma bëgg bañ ko mu bayyi rek ma bëgg ko may sax daan ko mu togaat ci lamb rek. Bébé salim guuy gi mënuñu ko xaar. guuy gi mo la gëna xamni bu bëree wul ak man samedi dañuy bëri dimanche ma amel bor te force mu fay ma. Ah, parce que dafa la daanol mo tax ndax Bébé salim guur gi mënuñu xaar ben revanche bu am. xana mu ragal bañ ma jël ndax nak Bébé salim guddi gaay dañ koy xolaat de barke alcorane karim. billahi wallahi taala Bébé salim mi gaay yi dafuñu de ak ñoo mëna a dañuy hol de dafuñu de. wa dañuy hol bu baax. dañuy xulli dafuñ Saalum nag buy tappale garaawut dañ koy ñeme mais Saalum waabee rek def li war a def ànd ak ay doomu ndeyam waa Yëmbal jóg waa benn baraak jóg waa Malika jóg waa Kaolack jóg ku ma ci géew maa la mën. ñu gis sa tactique de bi nga bëreeg euh, Bébé Saloum mu gaaw lool nan nga ba suruxal ki nga xamante ne moom mooy moom mooy euh, Baye Mandione ndax combat bi tactiquement dafa gaaw ñu jékki-jékki gis Baye Mandione ci suuf noo def. Baye Mandione dama ko liir dugg ci centre moom day dóor ñëw maa ko doole aller ak retour. ma liir ko ñu weccee ay kurbañ basam dal ma mu am doole sax mais bu ma loon entraînement ah du baax ma recevoir coup bi léewtoo ak moom dagg dagg dagg léewtoo bi dugg ci centre de gravité am def je ballon mu ñëw ma dajeeg moom mu jeex. mu am ay combat espoir yu am solo yu fi am euh, diggante ki nga xamante ni moom mooy euh, wax nañ ko léegi mooy rëg-rëg ak Sa Thiès mu am combat déclenchement boo xamante ni euh, ñi ngi war a fekk ci VIP tey gis nañu rëg-rëg signé contrat. diggante moom ak Bombardier Sa Thiès ñi ngi ne moom ak Tapha Tine lan nga xalaat ci espoir yooyu mën a daw fekk ci gars yi ci kaw. ay xale lañ mën nañ ko ah. ñoom ñooy relève lamb actuellement ñee def nañ li ñu war a def ñee buñ mayee booy chance jaadu na parce que booy yi liggéey nañ ba si ñoom et puis lamb daa war a am taar ci kaw quoi mais pas ñeenti nit wala juróom booy yooyu ku bëgg àgg nañ ku bañ àgg nañ muy Sa Thiès Reug Reug ama léegi sës na eggul dafa sës booy ñaa eggul dafa sës ku jël avance euh, roi des arènes sës nga. te jël nañ ko kon champion yooyu ñoo ne di leen gudd fan ak wér cëriw cëriw wér péng mbooloo mu takku xéewal ku bari te barkeel lool ba nga leen koy ñaanal kuluxum kuy takk ser waaw moom ay combat yu am solo yu nekk suñu kanam Ama Baldé Gris Bordeaux en tant que mbër ñaari mbër yi noo leen gisee tey combat boobu lamb ju neex lay doon moom lamb ju neex a neex ndax dañoo bokk sa pied bu ñu teg ku ci nekk fausse garde ngay teg Gris Bordeaux loxoy dox dox Ama Baldé du gis ku day ñëw kon lamb ju neex lay doon ko waaw. nan nga gisee absence wu Ama Baldé jamono ji ci blessure am mu war a dellu si waat est-ce ko indil gàllankoor diggante ma Gris Bordeaux. dama ko yërëm financièrement ndax a bëre. te lu xam ko ci nekk muy daj. ci der di jëw yàpp. ko yërëm financièrement ndax xam naa làmb ni mu méttee waaw. mu jóge ci bala Gaye am défaite combat am ak Ama mu daje espoir boo xamante ne bëgg na amaat dara ci làmb noo xalaatee Gris lima may bëgg wax nak lima xalaat moy ma ngi ñaanal Gris Bordeaux yalla may ko ndam. li tax nga ne Gris Bordeaux yalla may ko ndam. giri la sekkal gu tol nonu lu waral giri ak ak Bébé salu ba am sa digi c'est parce que gis nga nit mama bi ngay am jafé jafé ko gis ko koy saxarit taw deug yalla giri yàlla Gris rek la gis mo andak wa dekk Lamb jël xaalisu bopom jëlal ma avocat. ñu ne déetawaay mu jël lekk dund yóbbu sama kër boole koog doon ma dugal xaalis ci kaso bi pour mooy mën a am crédit bi ma wootee tabaski jot mu fàttaliku sama soxna ñawal sama soxna te boobu mi ngi ci en état de grossesse boole ko xaalis bu bari jox ko suy bëreeg sama papa moom laay faral bu ma ama mere de ndax du ma noonam man nag ba sëñ Abdou Karim may sëriñam waaye su ma waxee ci boo Bordeaux leneen lu dul lii ma dëkkee wax danañ ma xeeb te lu may wax duñ ko dégg. mën nañu buy bëree giri giri laa faral. papa bu bëre giri giri la faral mbok yi moy la am sa lo xamanteni de ngeen bébé salum day wanen li mbeuri lamb yi gannaaw lamb ben lañu parce que ñi ngi defante solidarité lolu mu am solo mu nekk lu am solo lo xamanteni giri bodo def nako tay lan ngay wax yenen mbeuri mu nekk exemple ci ci sen and bobu ngeen and muy and coalition wu làmb waaw mbër man damay mal place ci wax ak ñom ndax waxon na ak ñom bi aline sar nekké diñu jël diñu jaay diñu jël diñu diñu yew diñu jël diñu duggal ci kaf ndax jité nit du tee weer wu dee ngeen ko kañu ñu toog wàññi suñ bénéfice parce que ja perte du tee wàññi sa bénéfice règlement daf ñuy dab comme dem comme yow bokkoo ci lamb te ba àdduna doon bax saison buubee ba ben règlement jóg wala ñu koo di saison da jeex léegi la mo tax intérêt mbeur bi dàquñu ñuko lu ñuy daggee mbër bi rek lañuy xol xool lu ñuy sikkee mbër bi rek lañuy xol xool lu ñuy humilier mbeur bi rek lañuy xol nan xolaat yeufi ta xamni sport ñoko mom ma nga wax ci teggin nak di balu ñëpp di di siar ñëpp ndax dañuy bëgg wax rek mënuñu ay jaam lañ bu baaxee yalla jam bu baxul jam bu bëggono wax la tax xaw ma li wax ñu jéggal ma mais dama bëgg lamb ñu bañ a bañ dag leen ñu dogo wax ba may jóg di yuxu bañ may bindé ci lamb man di nangu sama licence bu ñëpp jógoon lañ doon safara sax fajo mais intérêt personnel la mbeur di dund mbeur bopam rek la xam man nak dama bëgg wéddi lol ci ngor ci ci joxé ci yëg nit ci woyof ci doon talibé ma bëgg doon bàyyi faalu mbeur yi doon seen balit doon seen lepp duma tayé teyee fuma jëm lu neex waaye na wax lu neex waaye ne def baal naa ñëpp man ku ma tooñ maa ngi lay jégalu di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm sax lamb yàlla na jóge fi mu ne ndax mi ngi sukuraat perbe biw rëy euh, perbe biw ñëw ba koo rey perbe biw day day lamb de seetlu leen lamb amatul visibilité da ngay nekk ñu suba la ñu nekk ba ñu suba ñu ne ñu ne lamb ji maanaam kon kañ la kan mooy bëre kon loolu euh, perbe biw moo koy def quoi kon am nañ droit ñu xoolaat tuuti na la ñuy changé règlement yi ak nu nag damaa bëgg ñu jeexalee ci diggante Balla Gaye ak Eumeu mu nekk revanche te gis nañu euh, Yékini dong moo réussir daan nit yoon est-ce que jàpp nga ni euh, moom Eumeu Sène mën na daan Balla Gaye troisième fois wala Balla Gaye mën na jóge ci defet diggante ak Boy Niang war a mën a ñëw jël revanche am nag ci Eumeu Sène ñaari ndaanaan lañ te Balla ji koy gaynde la yor mais Eumeu Sène ndaanaan la ji koy la yor ji koy jinne la yor kee léegi nag moo tax seen combat day neex que le maire ci ku may faral ci ñoom ñaar ku ci daan baax na. mooy bébé Saloum. man daal ba ma nekkee micro ni ma Gris Bordeaux ma faral ko te pourtant ñu ngi ma joxee avance Gris 2 dama koy lekk ndax du Gris 2 laa seqal coloré Gris Bordeaux laa seqal coloré. bébé Saloum moom li ma li Gris Bordeaux Gris mën a am yóbbu ko këram man mënu ma jox kon lan moo ñu ko mën a jox buñ ñu boolee ñu bëre ci jàmm bu ma daanee baax na ma ko daanee baax na. dañuy espoir lan nga bu neex la mais ku juum yaa mën ba calculé woo li nga def yuux mun naa ji fuñ foogeewul ñaar ñaari booy booy yëpp pare nañ que le maire gagne quoi. kii mooy bébé Saloum. li ma wax ci avant dama bëgg jàpp ji xam ni man du ma toog ci der di jëw yàpp su ma waxee Gris Bordeaux ku muy bëreel moom laa faral même son papa ñu dékk ma micro ci Ama Baldé ma wax leneen lu dul lool rek man nit ñi war nañ maa xeeb mais dama borom nopp yu dégg yi laa wax yéene ma ko savaan de yéene ma ko lu ñaaw. li ma yéene ki ma laaj laa wax. ñu dégg ne président de la république dafay recevoir mbër yi ndax yëngu boobu information. jaadu na ndax xëy na mun na faa mun nañ faa jaaree defaru ñu jiite bu ñu waxee li ñu war a wax te cofuñu ko li ma bañ mooy jàkkaarloog président nan ko yaa fi gën Serigne Maram Faye sal a ah, déet looloo am te mooy dëgg moo moo fi jiitu waaye ñi fi gën a ngi moo fi jiitu waaye ñi fi mën a ngi fi buñ taxawee nañ wax dëgg ci xam ne jiite nit daa metti bu kenn waxee sa intérêt personnel nañ ko monsieur le président macha allah jërëjëf li nga def rafet na li ngay def it mi ngi rafet mais lii ak lii boo suñ sabab moom lañ bëgg boo ko mënee saafaraal saafaraal ñu ko. jërëjëf mooy li am solo mbokk yi kon nag ngeen gis tey jii seen émission bëre daan muy li am solo tey ñu am spécial ki nga xamante ne mooy Bébé Saloum barki démb am nañ fi un ancien lutteur waaye tey mbëru tey la ñuy waxtaanal muy Bébé Saloum muy loo comme loo xamante ni amu leen ko fenn pour ci télévision bi dégg li mu wax. waaye wan nañ leen mbokk yi lan mooy bàkk wan nañ leen ambiance su làmb ji wan nañ leen way séeréer wan nañ leen ay komba mais grand combat bi bu laal ak ki nga xamante ni moom mooy Pokola moom lañ lañ tëjee émission wu bëre daal tey ngeen am ki nga xamante ne mooy Bébé Saloum dégg ngeen révélation yi mu wax dégg ngeen li mu wax ci ki a xamante ni moom mooy Gris Bordeaux taxawaay bi mu ko taxaw gannaaw bi ko caabi féetee ginnaaw te loolu mooy làmb loolu la soxla nañu bokk ndey bokk bàyyi day jàppalante émission bëre daan rukk-rukkaan am ci làmb yëpp lañ leen di wan incha allahu rabbi mbokk yi di leen jox rendez-vous grand diggante Pokola ak ki nga xamante mooy euh, Boul Laal fii ci Lougaré TV jaa ngeen jëf ak bëre daan day daan chaque jour